dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gii di réew mi quotidien l'observateur vox populi sud du quotidien le témoin yéenekaay yépp xëy dikkal ñu ci ndaje mi nga xam ne niki démb général François Ndiaye doon na ko amal ak ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum séddale dund gi maanaam bilan bi la doon amal daan na dikk ci yeexaay gi nga xam ne am na ci yeexaayu séddaleek dund gi wax na jafe-jafe yi nga xam ne ñoom ñoo ngi ko jànkonteel wax na ne lu toll si juróom ñaar ci ay région yoo xam ne maanaam dem nañ fa général François Ndiaye niki démb ci bilan bi ci yéen a kaay gii di réew mi quotidien daat nay wax ne bëri na ay région yoo xam ne ci Sénégal jox nañu leen ak dund ba ñu pare waaye nag daat nay wax ne région bu Dakar bokk na ci région yi gën a compliqué ci libération yi a kaay ñu fekk fa Mansour fay la mu xamle nee na lu toll ci téeméer ak fanweer ak juróom benn ci ay commune jox nañu leen dund réew mi quotidien ñu fekkaat fa général François Ndiaye la mu xamle nee na ñoom la ñu xayma woon maanaam mbir mi daf ko ndax ñi ndóol ci réew mi dañoo bëri xayma bi nga xam ne ñoom xayma woon nañ ko maanaam xayma boobu boobee da na a naax moo tax njiitu réew mi di Macky dolli na ci lu toll ci téeméeri junni ci ay ménage yoo xam ne maanaam yokk nañ leen si général François Ndiaye daan nay wax ne lépp lépp ci yenn gox yi dajegul waaye danañu fexe ba mu daje te liggéey bi danañu def sunu kem kàttan ba lépp jaar yoon lépp leer bu ñu paree danañu def ab rapport final jébbal ko njiitu mi di président Macky Sall yéen a kaay gii de la Tribune ñu fekk fa général François Ndiaye muy weddi nee na amul benn yoon boo xamante ni ñoom liggéey nañ ba tudd mbirum pér jëma loole nag ñi nga xamante ni ñoo ko wax neex dañoo bind lu la neex wala ay journalistes yoo xamante ni dañu leen a manipuler wala dañoo bëgg yàq yéen i kaay gii de la témoin mu xëy di ñu xamal naan ñu général François Ndiaye ni ki démb ba mu janoo ak taskatu xabaar yi daan na leen di wax ne lépp loo xamante ni daal ak leeraangale ñoom danañu si bay seenu laaj ba lépp leer ñi nga xam ne ñoo si war a jot dana ñu si jota bi ñu ko laajee na ko général ndax ñëpp danañu jot ci dund gi la mu xamle mooy su ngeen bëggee dégg-dëgg maanaam dund gi moom ñëpp mënuñu si jota yéen kaay gii de Dakar Times xëy nag ci lu soxal wàllum saax saaxee liggéey gi nga xam ne ñoo koy def littoral bi journal bi nee na mbir mi commencé wul rek ci Macky Sall te Léopold Sédar jaar ci Abdou Diouf ba si Abdoulaye Wade ba si Macky Sall bi ñu si defee ab enquête xool nañ ne président yëpp ak seen régime maanaam doon nañu saax-saaxee li nga xam ne mooy littoral bi yéen a kaay ko di Sud Quotidien mu xëy dikk ci Descos mi nga xam ne am na ay kër yoo xamante ni daaneel naka sama mel waaye nag ba muy daaneel dafa bëri kër yoo xamante ni waa Descos dañ koo jéggi maanaam ñi nga xam ne ñoom la ñuy wooye intouchable ñi nga xam ne kenn du leen laala mbir jax-jax maanaam ñooñu seen i kër kenn du ko daaneel loole nag ana fan lañ ko teg maanaam ñi néew dooleek ñi am kàddu ci réew mi yéen a kaay gii de réew mi quotidien ñu moom nag daat wax ne point du jour bi nga xamante ne bëgg nañ ko fee jëlee buñ ko fi jëlee musiba mën naa am ndax buñ ko fi jëlee askan wi dañuy jàpp ne maanaam xeex woppi coronavirus dafa jeex ci réewum Sénégal te nag bu ñu bëggee rek génne ab communiqué jox ko presse bu ñuy exploité ko maanaam ay manipulation ak ay fake news mën na see am yéen a kaay gii de l'observateur mu dikk ci promulgation loi bu yees boo xam na njiitu réew mi di Macky bëgg na kaa teg jëm ci wàllum emploi maanaam les codes du travail ñi nga xam ne ñooy professeur université yi ñoom nag dañuy sàkku maanaam am lu toll si juróom-ñaar fukki at doog a dem retraite journal bii di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal naan ñu Luc Nicolaï mi nga xam ne dañu doon wax ne dafa dem ci ab gerewu xiifal loolee nekk dara du ci dëgg administration pénitentiaire bu Thiès daan nañu koy weddi ba pare teg si ne Luc Nicolaï néeg bi gën a neex ci kasu bu Thiès moom lañ ko jox yéen a kaay gii de la soxal atteb Lamine Diack ca diwaanu Paris la France am na ay xibaar yoo xamante ni ni ki démb jib na sa atte ba ndax Lamine Diack bi ñu koy laajee muy tont ci question yi ba mu mujj sonn dafa wax ne doomam jii di Massata Diack maanaam comportement wuy la yore moom Lamine Diack daan nay nangu ne jot na xaalis yéen kaay gi nee na la mu wax nee na jot na xaalis sa ngir dafa bëggoon a combattre Abdoulaye Wade Vox Populi xëy yóbbu ñu diwaanu Touba ak riir mi nga xam ne ni ki démb am na ci quartier Kër Ñang ndax dafa am benn waay boo xam ne dañu koo bëggoon a denc ndaw ñi nga xam ne ñoo dëkk dëkk sa koñ ba lànk kandaare na duñ ko denc ci armeeli kër ñang yi ndax ñoom nee nañu kookee ab ibaadu salafis la kookee bëggul Serigne Touba mujj ñu ko fa denc dañu ko mujj yóbbu Baqiya ya kaay gi di Stades mu xëy di ñu xamal laan ñu football bi commencé waat na tey jii Cristiano Ronaldo dina daal di football niki suba si samedi ji Lionel Messi ñaari extraterrestre yi tey ak suba danañu football ba tey ci biir yéen kaay gi ñu fekk fa Idrissa Gana Gueye moom nag daat nay yi nga xamante ni ñoo ngi koy fësal di wax ne dama bëgg a jóge Paris Saint-Germain loolee maanaam dara amu ci laa gën a bëgg Paris tey laa fi gën a bëgg a des